sifaatu saadixil muriid di bixtisaar arbaatun nasamtuhaa xawfa xtiraar ñi ngi ko sos ci atum 2012 Minam Déco di ab entreprise bu yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum ameublement nekk fii ci dëkk bu sell bii di Touba Minam ko dina jaay lépp lu jëm ci chambre à coucher moquette matériel bureautique rideau ak yeneen ak yeneen si ay njëg yu xéewale Minam Déco nag moom euh, comme ni ko ni ko ni ngeen ko gisee euh, ay ay ameublement la ñuy def euh, luy rafetal néeg rafetal chambre rafetal kër lu xeetu chambre à coucher ay armoire de rangement matériel de bureau bureautique dañ koy def aussi dañuy euh, def luy rafetal ay ngegenaay ay table ay salon euh, ay ay ay ay montre tout ce qui est luy rafetal nekk ah kër xet baax baax ay moquette ak yëpp dañ koy def ku kuy kuy sànc la ñuy wër vraiment boo waa soxal na sedd waaw ci prix ak ci qualité aussi ah abordable très abordable wax dëgg yàlla prix abordable na parce que qualité moom mooy définir prix en général waaw quantité boo xam boo ko jëndee dañ lay livrer ba sa kër léeg dañuy def sax livrer montel la encore parce que xeetu ay armoire chambre à coucher tout ça là day ñëw indi ko parce que duñ ko préfère di ko jox ay ay individuel parce que ñun ñoo koy gere fekk fekk fekk installé wuñ la ba nga ni ok ñun ñun ñoo suñ matériel la ba léegi. Minam di ko yamul foofu rek si dëkk bu sell bii di Touba ubbil na leen yeneen bërëb yu fasantikoo si biir réew mi. pour l' instant ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, décentralisé nañ ko à Mbour Mbour am na fi benn succursale en face la douane waaw à Mbour am na fi benn mais comme nii la rek yi lañu fay jaay waaw. di ko seen ay produits doon ay produits yu am qualité te loolu clients yi ñoo ko séedee. damay faral di jëndee fii. daanaka bu ma amee loo xamante ni lu ma intéressé dëgg moom fii laay ñëw baax baax fi la nekk. Mm-hmm. ndax yàgg naa jëndee si si yàgg naa fi jëndee nag surtout beneen boutique bi nekk fële 28 mm-hmm. foofu laa gën a faral fa jëndee mais fii tamit dama fiy ñëw. ñu mën a wax ci produit yi am. produit yi moom qualité la wax fa yàlla ndax loo loo xamul moom lay jaam xam naa ko bu baax. Mm-hmm. moo ñëwee fekk sama tons bàcc. daf koy toppatoo bu baax a baax vraiment. kon sa mbokku jigéen xanaa ñu daw si ñëw rek wala affaire yi di jeex bëgg lu baax daal fii la. meuble yu am qualité te njëg yi xéewale lool ñoom ngeen di fekk fii siminam Minam nekk Touba 28 kër Serigne Thierno Diouf Lambaye jàkkaarloog banque BICIS. ngeen man leen a jot ci numéro yii 78 115 86 36 wala ci 77 642 32 36 Minam Déco ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér.